nit dina tux yàmbaa tàqalikoog sagoom kooku dafa dof loolu dañ ko faj ku tux ku ba doppooral ku tux bu doppooral waaw waaw am naa ci solution am nga ci solution yow waaw yow ku rab dugg ku tux tux teg ko ci coobareem tux ba nag ba tàppaltiku ñu ñu démonté waat loolu rek ma démonté li li li ko dal rek tegaat ko ne le ba dootul bëgg sa tux mi Les bouillons d'épices sont devenus des ingrédients incontournables dans la cuisine sénégalaise pour certains ils sont même indispensables. sama problème mooy affaire yooyu dama ko bëgg quoi même sama coob nii sax xam li ma ko ci def day bëri.

qui, ce week-end, ils se la police et aux agents municipaux. Retour sur les événements avec Ibrahima Kamara et Modou Diop. Les allées du centenaire de Dakar débarrassées de ses occupants habituels. Les marchands établiers se sont frottés aux forces de l'ordre samedi dernier. J'ai vécu une expérience à Kaolack. Lorsque mon grand-père tape des bœufs, il leur donne euh, bouillons, pour, euh, pour pouvoir faire ça. Les chefs, non, ils ne mourraient pas, mais ils ne pourraient pas faire euh, grande chose.